li ku liman ñeel képp koo xam ne lam yëkku nekkut za taqwan di boroomu ragal yàlla minal xalqi ci mbindeef yi zamanan ci jenn jamono na nga moytu nag di saraxe di ko jox koo xam ne da koy moye yàlla ngay fexe daal ba koy sarax rek mu wóor la ne li nga koy sarax da koy jëmale ci lu yàlla gërëm waaye da ko jëmale ci lu yàlla gërëmut moom daal del moytu moom sarax koo xam ne jàpp nga ne li da koy moye yàlla rek kooku daal ëpp naa def wa axbaroo xibaar nañu bi an na baadal qawmi ci nag lenn ci nit ñu baax ñi xad kaana nekkoon na yont yi di joxe achet a dara ku la yowman ci bépp bis wala xalilan ak doonte lu néew la mis la kaakatin kem aw miskit wala aw bong bong faqat dong mu ne nee nañu nit ñu baax ñi am na ci ñoo xam dañoo saxawoon bis bu ne rek faaw ñu saraxe dara ngir yàlla lu mu néew néew daal moom duñ toog bis ba bis jàll te saraxewuñ ca dara dara dara duñ ko xeeb nag bu toll ne aw miskit mbaa bong bong mbaa tàngal mbaa benn tàndarma it mbaa xalu tàndarma it du tee rek ñu joxe ko ngir yàlla waaye duñ bàyyi benn bis jàll te saraxewuñ ca ngir yàlla su ma taxat di topp nag jalgati bi te sadduqin ci saraxe xalatu njuumte la mu ne nag di saraxe weesu fi koo xam ne yeeyoo na ko jàll jox ko keneen loolu ëpp naa def loolu moom njuumte lu rëy rëy la wa sarraxoo wéral nañu bi ànd man ci naka ka nga xam ne taxat daa jalgati na bihaa ci sarax sa man nga ne taxat daa jéggi na bihaa ci sarax sa li xëyri yi jëm ci kudul moom faxaasin aji mooy la jiddan lool nee nañu ku yor sarax weesu fi ku ko yelloo dem jox ko keneen daal mooy nga yàlla mooy gu wér-wér def nga lu wërtoon def daal bu wér-wér wala tujaawis bul jéggi bi tasadduxin ci ak saraxe zahara goog feeñ na ilaa baidin jëm ci aji sori wal qaribu te mbir moom aji jege bu dararin boroom lor la kama nekki ki nga xam ne tujaawiru da nga dëkkaaleeg moom wa nafsika ak sa bopp kasaaniki ni amaranaa lan digale xëyul waraa ngën ji mbindeef bi ci moom usan na nga ko jàpp amaranaa digal nanu bi bad i amri nafsi ci njëkki mbirum sunu bopp tuma bi man topp ca ka nga xam ne naawoolu daanu ko njaboote duuna labsin ci lu dul lënt maanaam daal boo xasee bay saraxe jox ko rek ka ko yelloo te jege fa waaye bul ko weesu dem di ko joxi keneen ku sori mel ne nga bàyyi fi sa dëkkaale bu sës ci yow dem di joxi keneen ni ñu yolante bi diggale mooy boo dee bëgg a saraxe da ngay njëkk a seet yow ci sa bopp ba xam loru nga ci am déet boo ca loroo rek far ko téye saraxoo ko bañ ko weesale sa bopp su fekkee sa bopp loruwoo ci nga seet sa njaboot gi ba xam am na ci ku ca lorom déet nga jox ko ko bu fekkee gisoo kenn ci sa njaboot ku ko ku ca loru nag nga seet ña nga dëkkaaleel ku la ci gën a jege nga jox ko ko noonu lañ ko yonante bi digale ku la gën a jege rek te loru ca sarax sa boo ko joxee ci nga ëppee tuyaaba ni sunu boroom ne qul maa anfaqtum min xayrin falil walidayni wal aqrabin door a jàll moo tax nee nañu al imaamu xali yu nee na jox saa mbokk benn dërëm moo ma gënal dem di saraxe ñaar fukki dërëm weesu saa mbokk moomu ba tey nee nañu Zeynab moo doon soxnas Abdullahi ibnu Mas'ud daal di ko ne yonante bi damaa bëgg na saraxe ibnu Mas'ud ne ma man sa jëkkër ak sa doom ji noo gën a yee ci sarax si yonante bi ne ko wax na dëgg de moom day moog doom joojee di sa doom ñoo gën a yeeyoo sa sarax wa fil xadiis yi nekk na ci hadiis laysa yaqbalu du nangu assamadu yàlla kiy jublu ci aajo liman ñeel ka nga xam ne tasaddaqa saraxe na taaddiyan ci jalgati abadan mukk hadiis ba nee na kuy saraxe weesu fi ku ko yelloo dem jox ko keneen yàlla du nangu saraxam mukk wa fiihi nekk na ci xadis ay don ba tey law jarat doonte dawoon na moom sarax ba xalaa yeddi sabahiina ci loxol juróom-ñaar fukk alfan ci ay junni lil ilaahi ngir buur bi al ahadika di kenn kaanat kon nekk ujuurul xawmi yooli nit ña al axirina ña di way mujj mit la ujuuril xawmi di toll ne yooli nit ña al awwalina ña di way jëkk addis ba nee na bu fekkoon ne benn sarax lu mat juróom ñaar fukki junni dañ ko joxlante kii saraxe ko kooka saraxewaat ko kooka saraxewaat ko ñu koy joxlante ba mu dem ci loxo yi lu mat juróom ñaar fukki junni du tee ka ko mujj saraxe dana amee yool bu toll ne yoolu ka ko njëkk saraxe wa axbaru xibaar nañu bi ànd rakk xatay ni ci naka ñaari rakka waxta duha ci waxtu yoor yoor wala xaddala ak defare bay nas nay ni diggante ñaar gaxa mi ngi mel ne ki saraxe ndegam moom am alal ba di ko joxe yombul ñëpp ñëpp nag am na yeneen yu bare bari yoo xam ne du alal te ñu bari mën na ko te bu ñu ko defee rek mu daal di wecc saraxe bokk na ca julli yoor yoor ñaari rakk lum néew néew boo jullee ñaari rakk ci waxtu yoor yoor rek dal di am tuyaabay saraxe ba tey boo defaree diggante ñaar ñoo xam ne seen diggante dafa naqari woon rek nga defare leen bañ juboo rek mbaa boog jéem nga saman man jéem leen defare doon ci sax la nga bëggoon yàlla dogalu ko it da nga ci am tuyaabay saraxe kazaliki nii tasbihatun benn sabaal takkoon dana nekk moo ko niyatan di aju doyluloo anhu walis saraxe taxmidatun ak benn alhamdulillah tabiinu bob dana bir kazaliki nii soo ko defee ena benn subhanallah boo ko waxee rek mu daldi wecci saraxe benn alhamdulillah ba tey noonu wa kullu xutwatin ak bépp jéego li masjid jëm ci jàkka soo jëmee ci jàkka ja benn jéego boo soqi rek ñu bindal la ci tuyaaba yi saraxe kadaaliki ni daf nu nu xaamatin suul aw xaaxtaneku wala aw ñandax it badat woo xam ne feeñ na fii ci moom xusan na nga ko jàpp boo gisee ci jàkka ji lu mel ni aw ñandax it mbaaw tiflit nga daal di koy maasale suul ko it daal di am tuyaabay saraxe wa kilmatun ab baat tayibatun bi aji teey taf yi dana dikk ay don ba tey mit la tasadduqin mbir mu muy kem saraxe bi xawli salafi ci waxi dawal ba ba tey benn baat bu teey boo wax rek yàlla dina la ci bindal tuyaabay saraxe wa mitluhaa am kemam la taqmiimu masjidin buub jàkka kazaliki ni idaatu siraaji leeral làmp ba fii ci jàkka ja faxusan na nga ko jàpp ba tey buub jàkka maanaam bale ko wala nga buub ko ba mu set daal ba tey moom it des na ci am tuyaabay saraxe taal ca lu ko leeral fekk ñu aajowoo nag leer ga ndax dañuy bañ jàkka ku ca taalub làmp te fekkul ñu aajowoo ko faaw day aajowoo te aajowoo bala ñoo taal ab làmp ci jàkka ji rek fekk ñu aajowoo ko mel na suñ jamono ji ba tey ni muy tàngee ku ca def luy seral uppukaay yooyu itam mel ne kon na nga ci am tuyaaba yu saraxe amrun ak digle bi ma'rufin ci njekk wa nahyun ak tere sabatagub sax na xam munkarin walis lépp lu bon ma'ruf mooy lépp loo xam ne lislaam da koo xam jàppe ko lu baax munkar mooy lépp lu lislaam aayal taamuwu ko digle lu baax aayal lu bon moom it des na ci amee tuyaaba yi saraxe wama ak lépp loo xam ne waqaa fegale na bii ci moom alpataacam si xiru dan ab der la ñeel ko lépp lu jëm ci def bañ bañ yàq ab deram rek niki yëkkati alalam joxe ndax bañ ko yàqub deram du tee ñu bindal ko ca tuyaa bay saraxe ka nga xam ne nag moo ñaaw làmmiñ ba nga xam ne ku ko joxul mu yàq sa der nag waa koy kooku nag moom moo yées ci nit ñi te it mooy gàddu bakkaar wa kazaliki ni juloosun toog zahra goog feeñ na mustaqbilan mbir mi aj jublu xibla toog jublu xibla te yéene ci jaamu yàlla waxuñu rek nga toog jublu xibla fekk dafa tombe nga ci am yéene ci xam ne yàlla fonk na jublu xibla nga toog jublu xibla loolu boo ko defee ñu bindal la tuyaaba yi saraxe kazaliki ni shafaaxatul wara tinu mbindee fii tinu doomi aadama ju mën di doon ndax ñu tin ko ko def rek am ca tuyaa bay saraxe moo xam nag yàlla dogal na ñu tin ko mbaa sax la nga ko doon sàkkulu ci ñu tin ko amut waaye jéem nga rek daal li ci bindal tuyaa ba imaatatul aza ak dindi lorja xani sabili wari si yoon wa fekk yoon wa am lu mën a gaañ kenn ku fa romb nga toppale ko ba kenn bañ caa gaañu moom it daal la ci bindal tuyaa bay saraxe hidayatul ak gindi li dil xamaa ñeel boroom gumba ga ab dil lii li ka di ab réeraakoon gumba gu xamut fan lay aw nga gindi ko teg ko ca yoon wa ba tey da nga ci am tuyaabay saraxe wa kulluma ak lépp loo xam ne akal taxaw lekk nga ko min maalika ci sa alal tabshiru dil imaani ak bégal boroomu gëm ma kalaamika ànd ak sa wax ay li mu ci namm maxaxoo ànd ak moom maxaxoo dafay yaxa dikk waaye dafa dellu ci wa kullu ma akal daxoo dellu ci ma akalaamika daa wax ne sa alal loo ca lekk bokk kooku jullit maanaam mel ni ngay lekk rek ab jullit ñëw nga woo ko ngir yàlla ngeen bokk lekk lu mu ca lekk rek ñu bindal la ko tuyaaba yi saraxe ba tey sa mbokkum jullit boo waxanteeg moom wax joo xam ne la mu di ab jullit moo tax nga fonk ko bay wax ak moom noone waaye ngir yàlla rek tax du sag bëgg du sag bari ay wax te bu doon ku gëmul yàlla it doo waxee ak moom noona ni nga waxee ak moom yàlla rek tax daañu la bindal loolu tuyaaba yi saraxe ba tey ku gëm yàlla saa yoo ko bégalee rek bégal nga nga ko bégal daañu la ci bindal tuyaaba yi saraxe wa misluhu am kemam la at tabasumu muuñ fii wacci yi ci kanamam ab julit soo jàkkaarloog moom tàllal sa kanam mooñ ndax sopp goo ko sopp ngir yàlla rek ñu daldi cay bindal tuyaaba yi saraxe wa misluhu am kemam la attakarumu teddu jikko wala defal ko teraanga sa mbokkum julit saa yoo ko teralee rek lu mu néew néew ñu bindal la ca tuyaaba yi saraxe kazaliki nii salaamu ko sëg nuyu alayhi ci moom bi buti saamin ànd ak mooñ dañ ne woon sa kanam képp boo ko tàllalee muuñ ci kanam sa mbokkum jullit ñu bindal la ca tuyaaba fii nag mu ne boo ko nuyoo ànd ak muuñ ba tey moo kanam gu tàll gi ñooyemoo daañu la ci bindal tuyaaba taxali atul aku ndokkeel la ñeel ko isa naa la ndem am na almaraama cakkuteef la sa mbokkum jullit bu amee mbégte nga ndokkeel ko ca ndokkeel googee daañu la ci bindal tuyaabay saraxe daañu wax itam jaali ga su amee aw tiis nga dem jaal ko it noonu dana ñëw ci kanam kazaliki nii dilaalatun tegtal xalal xayraati ca yiw ya ca yiw ya la ñeel ko li nu si ngir laa biire waxalal xaajaati ak ci aajo ya sa mbokkum julit boo ko xamalee lu baax ngir laa biire wala nga tegtal ko na muy def ba aajoom faju dal ngay am tuyaabay saraxe ci loolee nga def kazaliki ni ihanatun dimbali la waññal ko xalal xaaji ci aajo ja bi maa ci la nga xam ne istataata man nga ko ba tey sa mbokkum julit am soxla nga dimbalee ko ci la nga man lu mu néew néew rek te yàlla tax daañu la ci bindal tuyaabay saraxe wa mudaaraatun ak wëndeelante la waññal ko mudaaraatu mooy àndanteeg moom ca la ko neex te naqariwul yàlla loolu teggin la lool bu ko ñëpp doon def daanaka dund gi dana neex lool ndax bu fekkoon ne kenn ku ne la nga xam ne sawaay ji bëgg na ko te naqariwul yàlla yaa ngi ko cay fekk te yàlla tax loolu mooy mudaaraatu loolu lu rëy rëy la ko def ñu bindal la ca tuyaa bay saraxe safaan ba kay moo aay te bon bu ñuy wax al mudaahanatu al mudaahana mooy woyof diine ba topp nit ci loo xam ne neexul yàlla bëgg lu ko neex rek moo tax waaye xam nga neexul yàlla loolu nag moom ñoo al mudaahana koy moytu bu baax kazaliki ñi duxaa ñaan lëxoo ñeel ko maxas ci vaarin ànd ak sàkkul njéggal lëxoo ñeel ko sa mbokkum julit boo ko ñaanalee mbaa nga sàkkul ko njéggal rek ñu bindal la ca tuyaaba yu saraxe wa xarduhu akuk lebalam li wàccil baar yi ngir jëmmi aji bind ji xardu mooy lam aajowoo nga abal ko ko mu lay delloo si lu toll noonu dong moo xam day xaalis moo xam day wurus moo xam day ceeb mbaa leneen daal la cay soxlaam nga abal ko ci lu toll noona mu lay delloo si képp lu toll noonu desu ci yokk dara dara dara dara loolu mooy xardu lu ñu sopp la lu bari tuyaaba la ko defal ni sax ñu bindal la ca tuyaaba yi saraxe tawriixuka sag sotti almiyaaha ndox ya min dalwi ka tukkee ci sa baag fi inaahi ci ndabam yaf yi dana dikk mis la tasadduqin mbir mu muy kem saraxe ba tey nee na nga tàng sottil ko ca fa ñi roote mel ne bu dee ci teen ba nga jukki ci sa baag sottil ko mbaa ñuy kocc nga kocc ci siwo bi mbaa la ñuy kocce daal di koy sottil ci ndabam koo ko defal rek ñu bindal la ci tuyaabay saraxe wa xafaqaanul xal bi ak fir firi xol ba faq dan ngir ñàkk li ni amin ñeel ay xéewal fu ma atat ka topp ñu dikkal la ñoom xéewal ya baax de daalika ci gannaaw loolee na am waaw jullit bi su xolam fir firee ngir ñàkk xéewal gannaaw ba bu amaatee xéewal itam du te yàlla bindal ko tuyaabay saraxe ca firfiri ga xolam firfiri woon ngir ñàkk xéewal ya xibatu sishin ak maye waru dàll waru dàll li muy néew néew ku yittewoo nga jox ko ko mbaa ay dàllam dagg nga defaral ko ko ñu bindal la ca tuyaaba yi saraxe silatul xabli ak jokk ak buum koo xam ne buum dafa dagg nga fasal ko ko mbaa bu moom ñàkk jot nga jotul ko ko ba tey da nga ci amee tuyaabay saraxe kazaniki ni xam lu ax yi ka yanu sa mbokk li rukoobin ngir war uxi sa jàppeef na ko sa mbokk di war nga yëkkati ko teg ko ca la muy war mbaa nga dimbali ko ba mën a war ca la muy war daañu la ca bindal tuyaabay saraxe xamluka ak sag yan am ti xatahu ay bagaasam laxooñeel ko xalaa daabat yi ci kaw daabaam ja aw xëyrixaa mbaa lu dul daabaam ja in xasala ndem am na daaba baa bi day sàdd waaye bu dee ci way wi dañ koy bàyyi ni bañ koo sàdd ndax lori way wi ba tey nee na nga jël ay bagaasam tegal ko fa mu ko bëgg a teg niki bu dee ci kaw sareet bi mbaa ci kaw watiir bi mbaa de saxaar mbaa oto moom daal saa yoo ko jëlalee bagaasam tegal ko ko fa mu ko bëgg a teg rek moo xam ci kaw daaba la moo xam ci kaw leneen la ñu bindal la ca tuyaabay saraxe kazaniki nii ihaadatu salaatika baamu sag julli maaxoo ànd ak moom in kunta dem nekkoon nga faddan di kenn xabla xoo ci ak jëkkam waltasma na nga dégg ba tey bu fekkee dangaa julli woon yow dong amoon ngëneelal julli mbooloo kon ba tey boo gisee keneen kuy julli nga ànd ak moom dañu wax ne mbooloo ci julli mi ngi tàmbalee ci ñaar nga xam ne kon boo àndee ak moom julli da nga am ngëneelul mbooloo moom itam mu am ngëneelul mbooloo loolee nga def baa mu sa julli ànd ak moom daañu la ci bindal tuyaa bay saraxe waaye nag kenn koo xam du ilimaani raatib moom rek nag nga baamu ànd ak moom ngeen di ñaar nag mel na ni mu am wuute kazaliki ni istidaadul mashi taruk dox ga bisaaqay ni ci yaar yeel mahal la si ànd ka nga xam ne istaxaasa sàkku naa xetliku duuna may niñ ci lul fen koo xam day sàkku ko dimbale ku ko wallu nga dëgg tànk yu dóor mooy nga gaawantu rek daldi gaaw dem dimbali ko loolee nga gaawantu ci say tànk daw nga daw bu baax a baax dëgg tànk yu dëgër bëgg koo xeetali daañu la ci bindal tuyaabay saraxe ihaaratun akuk abal mu àbb nga abal ko ngir yàlla da nga ci am tuyaabay saraxe iyaadatun ak seeti ku tawat ku tawat nga seeti ko da nga ci am tuyaabay saraxe tashiihu janaasatin ak gunge ak tàdd gunge ab néew ba tey da nga ci am tuyaabay saraxe waxam luhaa ak yanoom nga almashroox nga di ko yoonal ba tey yanu néew ba mbaa nga bokk ci ña ko yore di ko yóbbu di ko fab googee di yóbbu da nga ci amee tuyaabay saraxe taasiyatun akuk jaali ab julit bi yàlla teg aw tiis nga dem jaal ko maanaam dëfal ko ci loolee ko yàlla teg da nga ci am tuyaabay saraxe ziyaaratun ak siyaare siyaare sa mbokkum julit ba tey te yàlla rek tax nga ci am tuyaabay saraxe ta'nisu di wahshatin ak wétali boroom ak wéetaay dañ koy wax nag wétali boroom ak njaay àllu waaye rek mooy ab julli bu wéet nga dem wétali ko ngir yàlla nga ci amee tuyaabay saraxe xadd xaalaxaa wax na leen ar raisu kilifa ga te moo di alyadaali faslun li ab dog la fi tilaawati jàng alquran wa maag la nga xam ne yata àllaqu dana aju bihaa ci moom jàng alquran da ko boole woon ci yi nga xam ne mën nga koy baril ndax sa waxtu bañ a wéy ci caaxaan maanaam say waxtu bañ a neen bañ a wéy rek noonu ci lu amul njariñ bëgg a wutal nag jàngal quran ab dog wax la ci lu yaatoo yaatoo amma fawaidul qiraati ndaal njariñi jàngal quran fa xadd raxaba xemem loona fiihaa ci njariñ yooyee xawlu baax bi man waxi lenn ci ka nga xam ne naqada gëstu na xam-xam ne fa man araada ku bëgg alqurba jege min mawlaahu ci boroomam fal yaqra nay jàng alquraan alquraan laa yansaahu yëlut mu di ko fàtte ba mu ko fàtte sax moo gën a neex ci firim waaye laa bi dañ ko defut laayu nax yu ndax jësamul yansaa yëlut mu di ko fàtte mbaa yëlut mu di ko bàyyi nee na jàng alquraan moom bari na ay njariñ lool te am na ko ci wax wax joo xam ne mën naa tax nga am ca dëgg mooy ki wax ne ku bëgg a jege yàlla daal del jàng alxuraan te bañ a bàyyi ab jaam bu ne bëgg naa jege boroomam mel na ne mu ne nag ku bëgg a jege boroomam daal nay jàng alxuraan rek bañ a bàyyi xultu wax naa ne fa man yurid ku namm ridar rahmaani ngërëmal aj yërëme ji fal yusbitan nay saxal tadabbur al qur'aani seetantal al qur'aan nee na ma ne ku bëgg ngërëmul yàlla daal saxal ci jàng al qur'aan te di ko seetantal seetantal mooy bu fekkee ne xam nga li baat yi firi nga xam ne boo teeloo mën a dolliku dégg ci maxnaaya ngay teelu nag di seetantal ndax nga dolliku ak dégg loolu mooy seetantal ko defee boo jëlee yenn tafsir yi nga xam ne taxu leen a gudd bariwut ay wax nga tàmbalee ci nag door a jàll ci tafsir yi nga xam ne ñoo dikk doomu mujj na yu guddee gudd loolu daal moo ci xaw a tane adim saxalal tilaawatan jàng li dal kitaab yi ñeel bi la téere walaw talaatatan ak doonte ñett la minal ahsaabi ci ay isib fii kulli yawmin ci bépp bis duuna hijraanin ci lul ak tong tong mooy bàyyi wala jàmbu kama talabatul xilmi niki nga xamee ne way sàkku ñi xam-xam zawoon timaa in waroomuk askanu lañu la ko jëm ci tong googule alxuraan na nga fexe ba bis bu ne nga jàng ci dara doonte sax yetti isib la waaye bul ko jàmbu mel ne ku ko woon gannaaw niki ñenn ci gëstukati xam-xam yi di def daa am ñoo xam ne buñ xasee yeewu ci làmmiñu arab alquran day xaw a woyof ci ñoom duñu ko teg fañ ko war a teg dañ ko xaw a jàppe rek ne yenn téere yi culture yi ci des nga xam ne daanaka rek duñ ko fonk duñ ko jox jenn yitte mu bëgg nag nga fonk ko lool xam ne téere bi yàlla wax yàlla mooy téere bi gën a màgg ci kaw suuf doonte sax yetti isib la itam fexeel rek ba bis bu ne nga jàng ko ca wa baadu man lenn ci ñi nga xam ne tasawwafu topp nañu tasawuf wa zaamoo te ñu wax bi annama ci naka la nga xam ne hum ñoom fii ci nekk nañu ca a'zamu moo gën a màgg minhu ci alquran wa dhalika dalilu te boobali tegtal zoorun neen la wa gazibun te di aw fen qad gharrahum war na leen iblisu iblis fii ci alquran faqtarib na nga jegeñlu li annahu ngir naka moom kat maddatu kulli hilmin mooy cosaan nga jàng maddatu sàdd daal gi waaye nag waaye tax ñu woyfal ko def ko rek maddatu mooy cosaanal bépp xam-xam mooy maddatu bi firi matière muy cosaan fii haadihi dunya ci jële àdduna di xawlil xarmi ci waxi sang ba ne am na ñenn ñu xeñtu yoonu tasuuf dem bay wax naa seen digganteeg seen boroom àgg na ci jëratut ñuy jàng alquran nañu nekk seen digganteeg seen boroom ëppante nag di jàng alquran loolu day nee na ña koy wax bu leen déglu xamal ne dégguñu ko fenn loo leen wax dara amu ca seytaani moo leen nax rek ci alquran kon nag ñooñu jekki di wax naa seen leeraayu xol ak nañu jegee seen boroom rëy na rëyaay bu toll ne bu ñu jàngati alquran ñooñu bu leen déglu xamal ne rek seytaani dong moo leen nax ndax nit lu xolam gën a leer ak lu gën a gën a jege boroomam rek gën a xiif ci alquran gën a bëgg alquran du ca doyal mukk mukk ndax yonente bi ci bopp bu sax yàlla wàcc ko ci moom xamal ko ko bu gën koo xam ñépp da ko daan jàng di ko seetantal di bëgg yàlla dolli ko ca ak xam ak dolli ko dégg kon nag rawante na keneen ndax nee na mboolem xeeti xam-xam yépp yépp ñu ngi cosaanoo ci alquran alquran mooy seen ndey xam-xam yépp yàlla feeñal ci àdduna ñu ngi bàyyikoo ci alquran laa tax juranhu boo ko tong mooy boo ko jàmbu wat luxoo na nga koy jàng mu ab bidan mbir mu ngay aji dappetal ko dee ko jàng te saxal jàng ga dappetal mooy saxal wastam bitan te nga sàkkoo ballulu maa lépp loo xam ne siita soob na la min fu ci moom abadan faaw minal xuloo mi ci xeeti xam-xam yi mis la saalihi salafi kem aj yi dawal ba mooy ña jiitu woon idi ngir kulluhum képp ci ñoom xarafa tànqe na min lujji baxrihi ci lëggum géejam ga moom alquran nee na del jàng alquran di ko seetantal te xeetu xam-xam boo bëgg a génn rek say boo fexe koo génne ci alquran ndax mboolem xeeti xam-xam yépp neneen la alquran mooy seen cosaan ci lañu koy jeexe ci lañu koy tibbee mel ne gaa yi fi jiitu woon ñoom ñëpp seen xam-xam yu bari ñu ngi ko tànge rek ci lëggum alquran mooy ñu ngi ko tànge rek ci géej gu alquran gi nga xam ne du fer benn yoon wa kullu wasfin wépp melo fii yow nekk na ca moom madduxu rabbina tagguk sunu boroom tagguk sunu boroom ibaadahu ay jaamam it tasif na nga jéem a melowoo bihi ci moom wastah jinan te nga joonlu mooy te nga ñaawlu kulla sifaatin mboolem ay melo xadd naha yooyu tere na moom yàlla alxibaada jaam ña an ha walis melowooyee wa jaanib ha te nga sorenteeg ñoom mooy rek teet waaye teet mooy sorente tahus kon nga laq rashadan jub ndax fa innahu naka moom yàlla subhanahu sorelal naa ko lépp leelul ci moom ma anzalahu wàccewu ko illa li taamala ndare ngir nga jëfe bihi ci moom fasda amila kon na nga ko jëfandikoo nee na booy jàngal xuraan di seetantal na ngay seet bu baax boo àggee ci melo yoo xam ne yàlla ngay tagg ña ko mel niki boo jàng ci njëlbeenu suratul anfaal wala ci njëlbeenu saaru almominoona ak ca laayey wa ibadurrahman yuy yi mel noonu da ngay xam melowee bu baax a baax ndax yàlla tagg na ña mel noona yow itam nga jéem a melowoo seen melo ya ba bokk ca tagg yooyee yépp melo yoo gis nag yàlla di ŋàññ